leen di ñaanal jàmm ci turu seydina abdullahi ibnu seydina isaa ruhullah kay doomi boroom oote bi di seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wassalaam nu jóge ci moom ñëw fii taataan ay ñaan ngir sotti ko ci jam yalla fi di fi dajje yeb yalla sotti ko ci rew mi sotti ko ci aduna bi nu ngi nuyu monsieur le ministre de l'intérieur ñu ngi lay nuyu lu bari di la yobante ay nuyu naam ndax président bi mu fi gëjee yàggul ñëw na ziyaar si baayam Seydina Abdullahi comme ni mu ko aada woo di def ku miin kër gi la lu fi dalit di safaanit mu jóg bala kaa kenn yëg wax naa keroog ne Seydina Abdullah ci barik maslaam gërëm na ba gërëm ko ko defal dara ko ko defalul dara sa jëm lay gërëm na la ngir ak da nga am masamaan la ko defal kon nak li fi président def mu ngi kay gërëm di ñaanal yalla di ñaan yalla ci réew mi yalla na yalla def jamm ci réew mi di la yobante kaddu yooyu joge ci khalifa bi dina la nuyu nuyu gën a tedd yaag délégation bi nga xam ne ñoom nga àndal muy njaboot gii xam naa comme Seydina lim nu leen te ñun ñëpp sunu njaboot lañu xanaa ma jukki si sunu maire Abdoulaye Diouf Sarr ndax xam nga yoof bàyyi laay dafa waxoon ne bu fi yàlla na moon a xiif du fi wàccee ndabal teraanga ne incha allah lépp lu ma am dinaa ko bokk ak samay mbokk te yoof seen taxawaay rafet na ci bésu Seydina Limaamul Mahdi bi ki nga xam ne nag moo leen fi toogal moom la ñuy jël nuyu ci loxoom mu jëm ci yoof ñu ngi leen di gërëm bu baax Abdoulaye di tam doom ci kër gi waaye mënul ñàkkit ñu gërëm sunu jarbaat bi Aminta Taal di gërëm may Maymuna maamam bi Seydina Limaamu gàddaayee lenn ci ta saaba yi fi desoon am na ci ñoo xam ne maamam la leen dénkoon soxna ndey salimale ñu agsi na ba kër ga ziyaar sunu di mbokkeet ci kër gi ci côté imam saxiir Seydou Gueye ci kër gi la bokk ala kulli xaal ma ànd ak sama rak imam Mam Libaas defe naa amul ku nu koy présenté ci réew mi ci xut bi itam yi nga xam ne bu ñu koy teg ñépp ay teewlu déglu ko ngir taataan xam-xam bu rafet uutu fi sunuy mag Muhammadul Maxtaar ibnu Seydina Mandione uutu fi imam Bachir nu àndoon ak sunu rakk imam Maxtaar ci xew wi tey rek ci yor-yor bi ñoo ko séqoon ak moom mu waroon a waxtaane ci xut bi Seydina Limaamu xol yépp a tooy laayeen yépp moom it yàlla na yàlla guddal fanam ak sunu rakk mu ci kër gi di caatu kër gi nu toog fi ak sunu doom jal mu ngi nii toog ah njaboot gi nga xam ne yépp ngi di toog dama xam ne bu a naree topp di lim te guddi na waaye ñun ñépp gis seen bopp ci nuyoo bi ndax ñëpp sayidina tudde na len te mel ni bu len tudde tudde na la bu ko defé li ëpp solo moy li olof naan lu fi yàgg deug la yàlla dafa wax ne ولقد سبحت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن mansurun لهم الغالبون li ndam la ndax indépendance ko ko amul do ko feete boko amé am jam moy tax nga tal kaa feete li ñu joggé bërki dem waye li ñu fi tax dajé bu ci yalla deful won ndam do no ko tal ba di ko sayyidna limam mo ngi tëdd ci booru geej geej bàyyee ka fi ku ne geej laaj nal ba mu def sayyidna limam ndax waxon ni yina ma xamul waye geej gi xamna may kan xamna sama martaba ci yalla newoon na ko géej bu weesu sama rëdd wi sama kanam ak sama gannaaw géej it di jaam yàlla boo xam ne xam na ki ko wax wax ji la ndax mooy ki ne mën a woon démb man a tey muy Seydina Limaamul Mahdi mu yam fakk Seydina Limaamu yam loo woon ba tey loolaa waral nuy màggal téeméeri ak ak fanweeri at ak juróom-ñett summa sadaxnaa umul wax dafa anjaynaahu wa man nasha wa ahlakna al olof dinay wax ne fen bu fajaroo bu dëgg gontoo dabk inna allaha laa yahdi man huwa musrifun kazzab yàlla du jubalal mukk koo xam ne yàqakat la yàlla du jubalal mukk koo xam ne day sos yàlla kenn du ko fajal mooy fajal boppam ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذناه اليمين ثم لقطعناه الوتين دفت وخيان انت بنتا بوم وخلو وان توت تلو ملا وخلو دينا تيج سبوم خل دك كون ام جنگ اب جاجل جمتيني سيدس سيدس ndax budé mom mi nga xamné daf ko waxal ne wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha wëlbatiku nakaan soo ma waxalee lu tuut ci luma la wax loolu dina tëy sa mu xol sama loxo ni yow dog ko keneen ku ko fi wax la ka yàlla wax dina ko jëflenté ak yow fama min ahadin fama minkum min ahadin anu hajizin bu boba bu mu buuree ut ci ko amul kenn ko meuna dox sama digënté ak mom nu deugmal lo xamne wax nga ko fi te lol la xalifa bi di ñaan president moy waxtaan ndax olof day wax ne rero amul waxta rero amul waxtaan mo ñàkk li ñuy digal nak Sénégalais moy li sama rak wax mam libas mi wax ke dem ci ngor moy nu sallu wital yalla ci sunuy xalaat ci sunuy jëf ci sunu xol nangu ne kenn du maye nguur ku dul yàlla qul lahu malikal mulk al mulka man tasha ablaye mu bax mi da daan wax ne tok ci bu la taxé gas jalba, bis di dina nga wara tok sa jal ba te do fa fekk ab waaye itam kéwél li koy tardeel ci kursam mooy dox di geesu bu la yàlla jiitalee tënxamul waaye bu dee ku wax nga tontu ko ku wax nga jëflante ak moom it doo gaaw a egg état li ñu séntu ci moom mooy bilan te yéen ngi liggéey yal na yàlla jàppale leen may leen ndam ci dénkaane bi nga xam ne kenn dénku leen ko ko dul yàlla subhaanahu wa nu ngi leen di dénk it sunu njaboot ga ca Cambérène ndax ku yëngu la la yëngala ëpp doole te kilifa bu njabootam yëngoo day baax mu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ne leen lu xew doom xew doom naka nu kilifa nangam ak nangam nangam moo nu nag bu yow mi nu ci mën a dimbali ginnaaw yàlla nga taxaw ci boobaa mu ne doom toog leen rek te ne li leen naqari danaa ko saafara loolu itam nu ngi ko koy dénk nu ngi gërëm comité d'organisation bi sëy naa moo leen jiite di gërëm groupe bâche bàyyi yéen jiite leen di gërëm mbooleem koo xam ne def na ci bis bi jiital si taalibe yi ndax ay nit lañu yoo xam ne xaaruñu kenn ci def Seydina Issa bi muy tabax jumaa jële gouverneur Wiltor yéene ne ko segu cinq cent mille da ko ko delloo ne jumaa ji bëgguma ko dul ab taalibe def ci loxoom